xibaar yi ñoo ngi ciy ànd ak Serigne Cheikh Ndiaye Njare Serigne Cheikh Ndiaye Njare nag Serigne Lasrar bu yàlla baaxal la yàgg ngeen ko dégg fii ci kër gi moom nag dafa indi xabaar bu neex jagleel ko ñi muy jëflanteeg ndax Serigne bi tournée bu mag la bëgg a amal ci weeru septembre jàpp weeru octobre tournée boobee bu jugee ci Sénégal réewu Gàmbi lay njëkk a dem fu ñu naan Sénégambia fa lay dal kon waa Gàmbi xaar leen ko foofee waaye bu jugee ca Gàmbi dina wutali réewu Maroc Maroc googee ca Casablanca lay dal kon waa Maroc xaar leen Serigne Cheikh Ndiaye njare waaye bu fa bàyyeekoo dina wutali réewu France France nag bu fa demee ca Paris lay dal waaye nee na ma Bordeaux nag mënu ma faa ñàkk a dem ndax Bordeaux googee am na ñu fay jëflanteeg waaye bu bàyyeekoo ci réewu France ma ngay wutali réewu Allemagne dëkk bu ñu naan Berlin nag fa lay dal bu demee ci réewu almaañ kon waa almaañ waajal leen bu jugee almaañ nag réewu Espagne lay wutali ca capital ba di Madrid nag lay dal waaye fi muy tëjee tournée boobee moo di ca réewu Italie itali googee ca Rome la sëriñ bi di dal kon nag waa itali waajal leen tournée boobee nga xam ne sëriñ Cheikh Ndiaye Njare war na koo amal moom sëriñ Cheikh Ndiaye Njare nag dina yëngu ci mbir yu bari lool bokk na ci tawat yi sonal askan wi. bokk na ci hémorroïde ndoxum siti ak néew kattan ci ñi ma ko sañ a wax waaye sëriñ na ko lool ci may na ko ci sëriñ bi tamit am na ndomba yu baax lool bu ngeen jëflantee ba mu jox la ndomba yooyee di nga xam ne kaaraange ngi ci waaye ku ne tukki tamit di nga wax passeport wàllu passeport it yàlla may na ko ci lool waaye tamit am na beneen saafara bu doy waar saafara boobee day maye xaalis bu ngeen jëflantee ba mu jox la ko yàlla dëppale seeni mbir di nga gis ne yow mi coppite am na ci sa wàllu am-am sëriñ bi nag pour nga jokkoo ak moom ni ngay def lu yomb la numéro di waaj a appel muy 78 475 27 82 numéro boobee la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare képp ku jokkoo ak moom yàlla na sa aajo faju ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bi tudd Bamba Dieng nekk ca Lorient Ligue 2 bu France waaye kat bu ñu sukkandikoo ci tàggat nekk fii ci réew mi doomu Sénégal bi dina bawoo ca Ligue 2 ba dem ca Ligue 1 ba club bu ñu naan Angers waa Lorient dañu koy able foofee benn saison képp ginnaaw bi mu yokkee contraam ca Lorient Lorient lim bëgg moo di able ko ca Angers te tàggat nee na lépp mat na jamono ji Bamba Dieng ma nga ca Angers fileeg suba mën naa am ñu officialiser ay mbiram mu dem ca Ligue 1 doxal ñu jugee ci Bamba te di ko ñaanal able googee Lorient bëgg ko able lépp yemb jël doomu Maroc bi tudd Naès Aguerd moom nag ma ca West waaye kat West able ci Real Sociedad able googee nag dina am xaalis bu ca toftalu ñu koy wax prépayant jamono ji waa Real Sociedad dañuy jox deux millions d'euros waa West ngir ñu abal leen doomu Maroc bi able képp la nag amul option amul dara lépp yemb na doomu Maroc bi dina dem ci Liga e-sport ba doxal bu ñu sukkandikoo ci foot mercato ñu jugee ci Naef Aguerd ak bëgg-bëgg boobee waa Real Sociedad am ci moom jël doomu Espagne bi tudd Juan Bernat gone gi nag Paris moo ko moom waaye officiellement Paris able na ko ca Villarreal able képp la nag amul option amul dara kon saison bi mu dooree ca France ca Ligue 1 bu France ca Liga e-sport ba la koy yeggalee moom Juan Bernat dañu ko able képp nag ca Villarreal ñu jugee ci Juan Bernat jël beneen doomu Espagne ki mi ngi tudd Stéphane Bajcetic gone gi nag officiellement jugee na ca Liverpool Liverpool da ko able képp ca Salzburgo gone gii nag waa Barcelone ngi ko doon bàyyi xel fan yële weesu waxoon nañu leen ne Barcelone ku remplacer Bernat la bëgg te gone gi ñoo ngi koy bàyyi xel waaye tamit waxoon nañu leen ne jege na lool ngir dem ca Red Bull Salzburg loolee nag am na waa Liverpool able nañu doomu Espagne bi officiellement ca Red Bull Salzburg di Stefan Bajcetic kon saison 2024 2025 foofee lay dem doxal ñu jógee ci Stefan Bajcetic dem ca waa Arsenal ñoom nag tey ji am nañu gan gan gi góol la mi ngi tudd Neto ma nga woon ca Bournemouth Arsenal seen deuxième goal bi tudd Aaron Ramsdale dañu ko jaay moom mii di Neto moom la ñu xaatimal contrat ngir mu nekk seen deuxième goal Neto mii nag ay jamono nekkoon na ca Liga ba ndax jaar na Valence jaar na Barcelone doomu Brésil la officiellement xaatim contrat foofee ca Arsenal kon mooy topp ci ginnaaw David Rea ñu jugee ci Neto ak contrat bu bees dem ca waa Barcelone ñoom nag am nañu latéral gauche bu bees tàq gone gi doomu Gana la xaatim na contrat ca Barcelone loolee nag mosul am Barcelone jëndee suur directement ca Gana jàddul fenn gone gii moo fa njëkk a xaatim contrat mi ngi tudd David autro moom David autro latéral gauche bu footballu Ghana am ci moom yaakaar la xaatim na contrat ca Barcelone club boobee di Barcelone nag mosuñoo jënd sóor directement ci réewu gana moo xam Barça A ak Barça be gone gii nag bu ñu sukkandiku ci Fabrizio Romano waa Barcelone jënd nañu ko. ñu jugee ci David Otro waaye clubam di du ñu ko génn gum Barcelone googee suba bu trois heures jotee maanaam quinze heures jotee Real Valladolid la ñuy jàkkaarlool Mundo Deportivo nee na Dani Olmo daf cay départ titulaire doxal bu dee Alejandro Balde moom tamit dellu si waat na te mën naa am mu départ doxal ca match boobee waaye tamit gone gi ñu naan Marc Casado day bokk ca match boobee moom moo nar a wuutu gone gi ñu naan Marc Bernal Bernal dafa am blessure bu mitti lool Casado moo koy wuutu suba jàkkaarloo ak waa Real Valladolid doxantu seen kanam bu 15 heures jotee maanaam bu 3 heures jotee ñu jugee ci waa Barcelone ak bëgg-bëgg boobee ñu am suba dem ca waa Real de Madrid ñoom nag seen gone gi tudd Reinier Jesus nekk doomu Brésil able waat nañu ko ci Segunda ba lañu ko able maanaam deuxième division bu Espagne gone gii nag milieu de terrain bu man li muy def la waa Real de Madrid ca Brésil lañu ko jëndee woon waaye ba mu ñëwee foofee ak tey jii nag doxalul moo tax able nañ ko fu nekk saison bii ñu génn sax ñoo ko able woon ci réewu Italie club bu ñu naan Frosinone noonee jël nañu ko nag able waat ko ca Granada ci deuxième reñee Jesus waaye këlëbam di Real de Madrid duñu ko génn gum dañuy jël doomu France bi tudd Eduardo Camavinga moom nag dafa am blessure bu xaw a métti waaye relevo nee na doomu France bi mi ngi yëg tan bu baax naam wéregut waaye commencé naa cukki-cukki nànk maanaam day daw nànk waaye kat li waa Real de Madrid jàpp moo di tereef bi bu jeexee maanaam équipe nationale yi bu ñu wootee ba gone yi delluwaat ci seeni club dina mën a door entraînement yi ak waa Real de Madrid moom Eduardo Camavinga jamono ji mi ngi yëg tan bu baax commencé na daw waaye mënagul entraîner comme ni mu ko bëggee ñu jugee ci Eduardo Camavinga waaye ñoo nga ci Real de Madrid ba léegi club boobee nag dañoo tiit lool ci ñaari doomu Brésil yi di Vinicius ak Rodrigo Goes loolee du samay kàddu kàddu marka yéenekaay la ndax waa Real de Madrid kat performance yi nga xam ne doomu Brésil bi moom la am jamono ji neexu leen dara te teey na seen xel ndax dañoo seetlu ne Vinicius bu saison bi dooree ak tey jii waa Real de Madrid xàmmee ko te dañoo gis ne dafa soppeeku bu baax am ci vestiaire yi la wala sax ci biti terrain bi maanaam bu ñu footballul dañuy gis ne moom mii di Vinicius dafa am coppite goo xam ne da koo gane si loolee nag tiital na lool waa Real de Madrid li ko dal moom Vinicius moo dal Rodrigo ndax moom mii di Rodrigo tamit waa Real de Madrid tiit nañu lool ci ay mbiram kon nag Rodrigo ak Vinicius bi Real de Madrid bëgg a gis gisaguñu ko ndax bi ñu dooree saison bi ak tey jii doxalaguñu ñu jugee ci waa Real de Madrid ak njàqare googee ñu am ci ñaari doomu Brésil Chelsea ñoom nag am nañu gan gan gi du kenn ku dul doomu Angleterre bii di Jayden Sancho dina dem ca Chelsea jàppale leen